dans les terre danoo yem ci côte yi. Hmm. moo tax dëkk yi mel ni gore Dakar Rufisque ay Saly Portudal ay Ouidah Elmina Le Cap Luanda Sao Tomé euh, Libreville. Hmm. ak Comores Réunion Madagascar. Madagascar ñu nekkoon les premières zones yi nga xamante ne ñoom lañ njëkk a habité parce que ci booru ndox mi lañ nekk. dégg la encore une fois li certifié ak liy wane la présence occidentale surtout chez nous. Hmm. si on prend la ville de Rufisque. moo xamante ni c'est une déformation. Hmm. Rio Fresco fleuve rivière frais. ci portugais loolu wane ni y avait la présence des portugais. des portugais ça c'est vrai. biir Rufisque. Hmm. Gorée baatu hollandais la avant muy doon baatu olof. d'accord Gorée en hollandais antique moo doon signifier bonne rade une bonne place. mooy fii de baax na. Hmm. boo fi taxawee da ngay gis navire yi da ngay gis bateau yi kenn du la attaqué. dëgg Dakar aussi déformation la de Dakar comme Sandaga ni mu nekk garabu Sand Dakar nekkoon garabu Dakar. guy ga nekkoon garabu guy bu fa nekkoon. mais aussi Ziguinchor fait partie. waaw Ziguinchor. ñoom am na aussi. les les les interpellé même même Ziguinchor aussi bokkoon na ci côte yi ñu occupé woon. voilà ça bien sûr. donc ñoom ñu pénétrer le continent. Hmm. noonu. Hmm. bi ñu pénétrer le continent ñu gis ni y' a organisation très forte des Africains. Hmm. maintenant qu' qu' ils ont fait ils ont armé les petits. royaumes. ñu attaquer les grands royaumes ñu dem vers la dislocation. d'accord ñu def régner ñu def diviser pour mieux régner. bi ñu tasee africain yi. danoo indi benn programme bu tudd mission civilisatrice. foofu ñi ñuy jàngal ci école nii la religion chrétienne a été amenée par les blancs en Afrique. alors que c'est faux. la religion chrétienne ne rime pas n'a rien avec être blanc. sa hmm. ne veut pas dire que ni tu es toi, tu es chrétien. D'accord. Ça ne veut pas dire que ni les Africains ne croyaient pas en Dieu hmm. ou à Jésus-Christ avant l'arrivée des Touaps. Non. Il y avait la religion musulmane comme il y avait la religion chrétienne aussi en Afrique. Hmm. Comme il y avait des juifs orthodoxes, moi les vrais juifs, ils utilisaient la Torah. Ñi ngi fi woon. Maintenant ci mission exploration boobu noonu mission boobu noonu. Hmm. bu ñuy ñëw dañuy indi ce qu'on appelle la bonne volonté. dañuy indi Euh, pour tabax ay églises. pour tabax ay ay ay ay écoles pour pour may africains yi ay dispensaires pour may africains yi ay ay tali. Hmm. may leen lépp lu nga xamante ni ay actions humanitaires xeetu diplomatie la quoi. voilà pour gëmloo ñu leen ni ñun ñu sommes là pour vous <laughs> maintenant l' africain hospitalier qu'il est. Hmm. il a ouvert ses bras pour les fair venir ñoom ñëpp accepter leen. Hmm. alors que le missionnaire lui il préparait l'arrivée de l'explorateur. d'accord. maintenant explorateur bi missionnaire bi moo ne ko boo demee Sénégal. Hmm. am na fleuve bu tudd le Sénégal mi ngi déparé Mamou. Hmm. Sémou Guinée. waaw boo ko jëlee mën nga remonter dugg Bafing Bakoy dem Mali Kidira Kaay mën nga jaar foofu Tamba Goudiri dugg Sénégal mën nga yéeg maatam frontière de Mauritanie wala nga dem Sénégal. macha allah léegi su ko defee ñoom ñu naviguer tout le pays. tout le continent. Hmm. assiéger le continent ba kenn ku nekk xam fan nga féete yow ñu samp seen drapeau. kenn ku nekk fa nga dëkk fa nga découvrir hmm. nga ne pays bi la yónni moo moom fii d'accord moo tax ay France ay Angleterre ay Portugal ay Espagne ay Allemagne bari woon fi ay colonie dëgg la bari woon fi ay ak ay Belgique hmm. bari woon fi ay représentants ça c'est donc loolu di dem di dem ba vers les années mille huit cent mu am ci ñenn ci africains yu jug ni mais ñun mënunoo continuer ñu nuy dominer nii pendant tout ce temps hmm. ñooñu jug la ñuy wax les résistants dëgg ñu def la résistance d'accord maintenant ci résistance bi dafa am quatre groupes. dafa am ñi def résistance musulman armée islamique armée. jihadiste yi quoi. El Hadj Omar Foutiyou ak Samori Touré. Hmm. am ñeneen ñu def euh, armée animiste. Lat Dior Diop Ngoné Latyr. Hmm. Béhanzin Chaka Zulu ainsi de suite am ñu def résistance. populaire. Mmh. Aline Sitoé jaata une jeune fii à l'époque il avait vingt ans dix-neuf ans. Hmm. la dame de Cabrousse. Oui. mais ñoom seen résistance jotu réussir. d'accord dafa échec ñii ñoo réussir seen résistance Maodo Malick Sy Cheikh Amadou Bamba. Hmm. Mamadou Lamine Dramé ak Mame ñoom nan lañ def mooy danoo jiitu tubaab yi. Hmm. ci gaa yi. d'accord sampal leen ay kuréel ay daara ak ay daayira gëmloo leen seen bopp gëmloo leen seen réew gëmloo leen yàlla avant tubaab bi di ñëw di jël seen xel ak seen xam-xam. mais fekk na boobu gañe nañ lu bari. Hmm. après ñu dem ci administration directe ak administration direct ba finalement conscience yi gën a yokk ñoom Senghor jàng ñoom Ngalandou Diouf jàng. Hmm. ñoom Lamine Gueye jàng ñu dem ba mujj jigéen ñu commencé nag xeex. def li ñuy wax la marche vers l' indépendance. d' bi ñu amee indépendance tubaab bi xam na ni kat léegi domination bi mu doon def mënatu ko def mu def ma hmm. maintenant sa néocolonialisme da koy basé ci xam-xamam moom làkkum tubaab bi mu bi nu jàngal ñun ñu ñu gëm ko jàpp ni boo solul costume cravate doo tubaab. foofu lay jaare aliénation bi ak domination bi. d'accord donc loolu noonu moo tabax CEDEAO. <laughs> mooy processus bi. <laughs> mooy processus bi parce que CEDEAO africain yi tooguñu rek ñoom xaatim ko. d'accord dañ leen ko xaatimal. ci ku nga xamante ni moo la xalaatal. waxal la. gëmloo ni la nii organisation bii boo ko tegee. Hmm. di nga yegg ci sommet bi. alors que moom bi mu lay fekk ak sa organisation daf ko tas. d'accord indil la moom organisation ni la doxee ko. Hmm. ba nii boo demee biir CEDEAO ña fay siéger am na ay généraux ak ay colonels bu armee française britannique allemande ainsi de suite biir CEDEAO ñu am fa bureau toog fa. di xalaatal africain bi lu muy wax. <laughs> ak ni mu war a doxalee réewam. tey organisation boobu noonu bu demee ba ay africain yu mel ni Guy Marius Sagna hmm. màgg juddu yeewu ba xam ni lii baaxul am nañ droit nii lii dafa war a dakk léegi nag looloo indi coow li parce que loo gis day périmer ça après cinquante ans CEDEAO hmm. judd na ba tas ay doomam yu xamante ni hmm. xam nañ li xew nee nañ ko alt doy na loolooy coow li indi tey parce que tey africains yi dem nañ ba xam ne ñoom ndekete du ñoom ñoo moom seeni bët seen i gët du ñëw moom seen i yoxo du ñëw ñëw moom seen i mbagg. dëgg la parce que kii kii ku lay ku lay ku la ku la ëmbal sa sa sànqal. ëmb sa kersa. ëmb ëmb sa kersa. moo lay wax fi ngay jaar ak li ngay dox ak li ngay wax. kon daal kon daal da nga gis ne da nga gis ne kon CEDEAO si si processus néocolonialisme bi la quoi. si. parce que parce que. par exemple moom mooy administration néocoloniale moom mooy <laughs> parce que parce que rupture amul xam nga ñenn ñoo def rupture. waaw asiatique yi. d' chinois yi waaw ça c' ak japonais yeeg coréens yi ñooñu ñoo def rupture. rupture dëgg la ñoom ñoo def anti ñoom ñooy ñoom ñooy anti système. ñoom ñoo génn ci domination parce que gis nga grand bi. li nga xamul mooy safurla li nga li ma lay fàttali. waaw li nga xamul li nga li ma lay fàttali mooy. waaw. gis nga booy làkk làkku jàmbur. Hmm. sooy làkk làkku jàmbur. oui non seulement sa muus day wàññeeku. Hmm. sa aada ak sa cosaan day wàññeeku. Hmm. sa gëm-gëm day wàññeeku. dégg la mais lu la yóbbu aussi day yomb. parce que liy yar nit luy tax mu doon ki mu doon. ci weenu yaay ji la nekk. dëgg la. mooy enracinement boobu noonu. Hmm. mooy yow ci sa cosaan ci sa aada. ci ngay defaroo parce que ci ngay xam li nga jomb li nga bëgg ak li liñ lay def loo ak loo mënul donc bu tant que ñi ngi véhiculer la langue française nekk dans des organisations francophones et autres di dérouler autres. Hmm. ñoom ils pensent plus vite que nous. ça c'est vrai. et ils vont réfléchir à notre place. donc CEDEAO organisation la bu nu mettre en place pour continuer la domination. du colon hmm. par les États euh, dominés. d'accord et et et kon yow selon instant bi euh, ñoom Guy Marius ak e, ni africain commencé éveillé mhm. kon am nga optimisme ne CEDEAO dina dundatu yàgg. bu jeexul ren dina jeex dëwën bala ginnaaw dëwën. kon de jeex na presque ci tas la jëm. d'accord. parce que dëkk bu mel ni Togo. Hmm. wala Bénin. Hmm. Côte d'Ivoire. oui ak Tchad. Hmm. sous peu dinañ dem ci coup d'état. ah bon. ah pays ngay wax. ma ne ay ñoom Togo. Bénin Côte d'Ivoire Tchad dëkk yooyu dinañ dem ci coup d'état ba ci Guinée. d'accord Guinée Guinée Conakry parce que le militaire qui est au pouvoir en Guinée. Hmm. n'est pas un patriote. c'est un français encore une fois. kon donc il a trahi. faire semblant la sa femme est française oui légion militaire française la defee formation. ça c'est vrai gis nañ fi ñaata yoon lañ fi gis des militaires yi nga xamante ni dañuy ñëw gëm loolu le peuple ça va alors que bu ñu demee ba que ndeket dañuy liggéey pour ni moom donc il pourra pas parce que mais ci yoon. dafa hmm. doon bokk AS bu fekkoon li muy woote dëgg la. mais mais pourtant en général ñi ñi ñi def coup uh-huh. ñu si bari day nekk ay antisystème français mm-hmm. mais moom mu def coup d'état après bokk si aligné français yi <laughs> kon est-ce que coup d'état boobu loolu wax au début ne que du complot est que kon c'est pas vrai. boo xoolee Alpha Condé ah. oui. biñ koy biñ koy boo xoolee image bu la neexee après mën nga dugg YouTube. nga xool xool dimanche bi ñu jàpp Alpha Condé. oui. mooy kii mu coup d'état waaw ñu ngi ko fekk ci saalam mu toog tëdd teg la ay tànkam. Alpha Condé jàpp ñàmbur <laughs> après mën nga xoolaat revoir da nga dinaa xool image Alpha Condé nga jàpp ni mu toogee hmm. ak ni mu nekkee à l'aise dëgg la maanaam stressé wu loon quoi vu l'image yi di yaa nami i booy seen président bii nii lii coup d'état monté la de parce que coup d'état dëgg daawoon na am beneen élan bu gën a sérieux que bii comme bu bag boo dégg la macha allah boo moom dañ ko xeex ça c'est c'est la France qui l'a destitué. dañ ko néewal doole quoi. waaw après ñun période boobu en 2010 ñun ñëpp ah, hmm. ni Alassane Ouattara <laughs> léegi histoire nous a rattrapé ñun ñëpp. <laughs> waaw histoire dab nañu 14 ans. 12 ans après. histoire wan nañ ni. Hmm. ndekete bac boobu moo amoon raison ci kaw Ouattara. mais est-ce que bac boobu était aussi tamit démocrate aussi ça reste à revoir hein. waaw mais moom li mu doon xeex. waaw. au moins ak li ko fa jëlee. waaw mooy la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. oui ça c'est vrai aussi. la Côte d'Ivoire loolu da la woon man loolu da la commencé woon yëkkati. ñu jëlee ko fa en tout cas jëlee bu ñaaw lañ ko fa jëlee. Ah. jëlee bu ñaaw ñu jëlee ko fa indi ki nga xamante ne dafa ñëw indi espoir. oui alors que ndekete day. mu delloo mumba ci ci mboy mboy bi. ça c'est mu nekk Ouattara. waaw euh, léegi nag boo xool moom CEDEAO am na la wujj bu am doole mooy AES. boobu si tey foog nga defal ma si développement. le Sénégal. ma ne CEDEAO am na wujj bu am doole. concurrent mooy AES je ne pas ba xam concurrent laa ko mën a tuddee wala adversaire mais nekk na benn révolution bu bees. bu ko ëpp doole sax. non a ëpp doole mais pour l'instant est ah <laughs> moo ko ëpp doole. parce que AES ay africain lañ. CEDEAO ay tubaab lañ. kon biir Afrique. d'accord moo ko a nga wax loolu. xaaral am na quelques études yu ma defoon. d' accord koy fàtte ma ma ma defal la quelques rappels. d' may ñëw quelques études yu ma defoon. d' accord xoolal on est on est on est on est après 60 ans de de d' waaw ci 60 ans indépendance yi. waaw on a importé des régimes étrangers. pluraliste libéraliste démocrate. Hmm. socialiste communiste capitaliste. amul benn régime proprement dit. bu africain am wala bu africain créé. lépp importation la. lépp dañ ko importé yii yëpp régime yi nii demee yëpp dañ ko importé. d' accord de 1960 à 1990. Mmh. sur 102 élections. Oui. présidentielles le président en exercice gagne en moyenne 92 pour cent au premier tour. est grave. les partis du pouvoir. Mmh. en moyenne gagnent 83 pour cent au premier tour. dëgg la. 29 états. Hmm. sur 47 yi nga xamante ni régime présidentiel ak élection la ñuy doxee. Hmm. les partis d'opposition non jamais atteint n'ont jamais été représentés. Hmm. dans le parlement sur 29 états sur les 47 états africains yi nga xamante ni dañuy dem ci élection. 29 hmm. yi. 29 sur 47. waaw n'ont jamais été représentés. d'accord. c'est c'est c'est très grave. c'est grave. sur 490 coups d'état. 490 coups d'État 490 coups dans le monde. oui. tentés dans le monde depuis 1950. à ah. aujourd'hui hum. les 220 sur les les 220. maanaam la moitié. waaw réussi. oui. 106 sont africains. 106 maanaam en moyenne un coup un coup d'État dans chaque deux États. deux états saa yu sa en Afrique sur les cinquante quatre états. la moitié. moitié des états africains bu ne mës na subir na coup d'état en moyenne bu ñu ko tasaare woon loolu la mooy cent six ëpp na cent six parce que boo ci boolee trois yi mujj yi. ak mu euh, nekk cent neuf ñaar yi ko jiitu on est à cent dix. cent dix cent onze. cent dix coup d'état yu réussir en Afrique. dëgg donc moo tax moo tax moo tax ñu am euh, comment dirais le le célèbre euh, écrivain. Hmm. Am Amadou Hampâté Bâ disait que. les hommes peuvent atteindre un but commun sans partager le même chemin. Ça, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui nous interdit, nous, hmm. d'aller vers la réussite et de ne pas emprunter le chemin de la démocratie wala le, le chemin de l'Occident D'accord. La Chine, Malaisie, hum. Corée, Japon, jëluñu modèle occidental yoruñu modèle européen pourtant ils ont réussi. macha allah pourquoi on nous fait croire que. Hmm. bu nu jëlul le modèle occidental on va pas sortir de la situation. dëgg la pourquoi on arrime notre monnaie à partir des réserves françaises. Mmh. occidentales. ok pourquoi le CFA n'est pas africain. pourquoi le CFA reste toujours et demeure toujours une monnaie coloniale. après hmm. soixante mmh. ans de d'indépendance. alors qu'on a l'or on a le zircon on a le diamant. Mmh. on a toutes les richesses qu'il faut. Hmm. avec tous les mécanismes. et les hommes et les intellectuels et les idées pour une bonne manufacturation. Hmm. mais on tarde et on recule en quelque sorte. d'accord de ces démarches là pour s'en sortir qu'est-ce qu'on attend on attend juste une volonté et cette volonté là ne viendra pas ne viendra pas d'un homme ou d'un hmm. chef d'État cette volonté viendra d'un peuple. Hmm. parce que le peuple est plus souverain. que le chef d'État. d'accord le peuple est plus souverain que le chef d'État d'accord. parce que lu tax man le peuple est plus souverain que le chef d'État. waaw. on prend un autre exemple. Hmm. un militaire qui a été élu. par l'ensemble de la population. waaw. est plus légitime qu'un président qui a été élu à cinquante pour cent démocratiquement. <laughs> qui est plus légitime. ça c'est vrai ça c'est moo ci ëpp légitimité entre ces deux hommes là. un militaire bu nga xamante ne dëkk bi ñëpp ko yëkkati en héros. contre un président boo xamante ne cinquante pour cent yi ñoo ko fal ñoo ko fal yeneen cinquante pour cent yi d' accord ak moom ça c' est militaire est illégitime ah oui pour man ce militaire là mooy mooy dafa mel comme tey li am Burkina le président Burkina bi plus euh, légitime que ñi nga xamante ni le président burkinabé le président nigérien ak le président malien oui le président Diomaye n'est pas plus légitime que d' accord <laughs> maanaam ñoo leen la yu ñuy jaar euh, parce que au moins ñoom jamono am nañ 46 yu leen am na 46 pour cent des sénégalais yu d' accord am na 46 pour cent des sénégalais yu d' accord ak Diomaye. d' accord ça veut millions d' habitants. 8 hmm. millions yi. oui 8 millions de sénégalais. alors que si les maliens son 12 millions wala 14 millions. Hmm. les 12 millions si sont 14 millions. 12 hmm. millions de maliens yi wala 11 millions de maliens yi sont mais est-ce que nekkul des fois ñi def coup d'état da leen di xoolee bëtu gér yi xam nga par exemple tey dafa comme tey benn Balla Gaye ni mu bëree daan wala benn Cristiano Ronaldo wala dara ñeen askan wi di bëgg est-ce jàpp ñu tamit coup d'état bi ñu ko réussir ces présidents eh, militaires là yaakaaroon na population bi du leen xoolee sax ne ñi wala mën a relever défi mais da xoole xoolee benn guerrier bu réussir benn pari quoi benn benn défi bu mu relever la quoi l'audace xamul tax xamul tax ci civil bi citoyen bi di xoolee militaire bi comme un guerrier. waaw parce que xam na ni ci moom la mën a sauver woo. ça c'est vrai aussi. bët boobu la civil di xoolee militaire. d'accord Sénégal un an ci ginnaw am na fu ñu toll woon militaire bi rek lañ doon xaar. dëgg la ñun ñi ñëpp. Hmm. ku ko manifesté wu directement manifesté nga ko indirectement am na benn moment bu nga xamante ni foo toll woon. ñun ñëpp suñu xel demoon na ci armée bi. parce que jàppoon na ni mooy bàyyi ci kër. dëgg la situation bi dëgëree moom ngay xalaat. Hmm. mais nag dañoo jaay benn information. dañ noo wax ni ñooñu ay putsch lañ seen méthode baaxul bu ñu toogee au dañuy régner. Hmm. comme régnum buur. dëgg alors que leen régner comme régnum buur. ça c'est vrai. alors que ñoom boo demee Royaume-Uni. Hmm. ña ngay régner comme régnum buur. nga dem Espagne ña ngay régner comme régnum buur. nga dem Italie dem Belgique. Hmm. dem euh, Luxembourg dëkk yooyu yëpp ay famille royale la ñu am. ça c'est vrai. donc bi du ci tën bi. mais ci xol bi la. idéologie ndax yow réel ndax yow sa idée ak sa xol. Hmm. réellement yow tu es patriote est-ce que tu es pour le pays ou pas. dëgg la. foofu lañ war a yegg. macha allah te man jàpp naa ni un soldat bu nga xamante ni il est prêt. Hmm. à se sacrifier. Hmm. sacrifier sa vie. oui pour sa nation. bu nekkee traître rek wàcce na wàcc na yoonam. mais déshonoré na quoi ça c'est sa ne trahit jamais. mais tey bu ñu waxtee tey si AES bi nga ne vraiment jënd le dessus si CEDEAO. ou bien mooy bi nga xamante ne aussi moo gën a prometteur pour ñi ko sekk ban différence nga yaakaar moom la AES am euh, vraiment ba nga am si optimisme bu foor boobu wala foi boobu. nga nekk ci biir kër. waaw. ñi nga bokkal ndey ak baay. Hmm. mooy CEDEAO. di la bund waaw. mooy ñu la jàmm soo amee problème ci biti ñu sotal ki ci biti. Hmm. soo lekkul ñu jël ñam bi des jox ñi ci biti. Hmm. situation Mali laa wax mooy embargo bi. bien sûr analogie laay def. d'accord ak ñoom Niger hmm. ak Tchad. kii Burkina. nga yor nga yor sa benn tuway sa ñaari yére yi nga yor as hmm. mooy or bi nga yor. Hmm. ñoom say frair yi la mag mooy Nigéria. waaw di d'Ivoire ak Sénégal ëpp la doole. ñu gis ni kii mi ngi ñëw di weri sa yére bi ko yóbbu. ñoom neewu ni ko xëy téye ci loxoom ni ko baal suñu yére wala suñu sunu alalu frère bi ngay yóbbu ñu seetaan mu koy cibb di yan du yóbbu. par contre sax ñu koy jàppalee ci roñ bi. Hmm. naan ko bàyyil bu mu génn wala ñëwal heure bi heure bi mooy heure bu baax bi. Hmm. non yow frère bi bu amee jom wala bu amee fayda. Hmm. wala bu bëggee dara bu bëggee bu bu fekkee bañkat dëgg la. su gisee keneen ko nii teg même métit bi ci koñ bi ñoom ñu constitué wu dem ndajaloo luwee néeg feneen muy gën fuuf. si ñoom ka ñu des si biir kër gi di fa ndékki di añ di reer te amuñu jàmm. il préfère ñiy ndékki kase wala ñiy añ kase hmm. am jàmm ci benn néegu location boo xamante ne ñoo ko moomal seen bopp macha allah man analyse boobu laa am ci AS ak bi ñuy nekk ci biir CEDEAO hmm. parce que dañ leen doon noot noot boobu ëpp leen doole mu jaral leen di dem du may site benn citation bu nga xamante ni hmm. citation malien la benn citation mandeng ñoom il di souvent que après une chute na t'intéresse pas au lieu de la chute mais ce qui t'a fait tomber plutôt parce que bu fekkee da ngay xool li la daaneel bu fekkee da ngay xool fi nga daanu te xooloo li la daaneel. Hmm. mooy ça veut dire yow doo jug ci situation bi nga nekk. d'accord ñoom il préfère. oui génn reculer. oui reculer nii completement hmm. pour demal seen bopp pour xool lan lay joxe. d'accord mais tey boo xool ah dama leen di fekk ci seen. ci seen ci seen xalaat boobu. bala may introduire Kalz xam nga AES mën na ne dañ ko créer ay maanaam groupe woy fipp la. est-ce que gisoo ne CEDEAO moo gën a am base politique ou fondement politique boo xam ne dañ ko créer en temps de paix mu ànd ak réflexion politique bien définie que AES bi nga xam ne ay groupe way fippu la parce que way fippu en général ñoom ay révolutionnaire lañu doon est-ce que yow boobu définir na réellement politique am boo xamante ni pays yëpp mënu si gis seen bopp à part souveraineté africaine bi. waaw sax. <laughs> d'accord ñu réussir ñëpp fippu quoi ñëpp fippu d'accord tey bu ñuy tudd si Amadou Bamba. oui exemple bu bañ a bañ a joxe yeneen exemple. wala nga remonté sax si yeneen tamit des des pas de l'égir beeg yooyu quoi yeneen tamit le prophète <laughs> Mohamed bu fippuwul woon. oui du gàddu garaat boobu mu yore. d'accord Moussa bu génnul woon. Hmm. Firawna di ko bunt xatal mu dem di jël ji ay dix commandements ñëw jaayante. du am tey li mu am. dëgg la Ibrahima bu jël woon Haajara ak Saarata dugal leen ci benn situation jël Ismaïla dama moom ci benn situation mu metti lool. Hmm. du yegg tey fi mu yegg. France bu développé c' parce que dañoo am benn militaire au pouvoir. Hmm. bu leen téye cinquante huit ba soixante neuf. muy le général de Gaulle. dëgg la Ghana bi ñuy joxe référence en Afrique. Rawlings comme démocratie. Hmm. Rawlings Jerry Rawlings militaire la. Rwanda bi ne dafa ba bëgg muy muy kaye kaye gi bu mu bëggee mu taxaw. Kagame. militaire la. te ñoom ñëpp danoo jaar ci répression bu metti pour. ñu mën a jàll pour ñu mën a jàll ci benn kii. d'accord donc AS bu fekkee am na ñu leen di tuddee ay mer ngemb. le souvent mer ngemb bi day ñëw def exploit. mais xam nga sama problème ak AS est-ce que un jour benn civil est-ce que est-ce que un jour benn civil dina leen dina a jiite damay ragal mu nekk benn kuréelu militaire. <laughs> non yegg fu nga xamante ni après ngeen ko yaatal quoi dinañ fu nga xamante ni après dootuñu soxloo ci militaire yi jël ko. parce que militaire militaire du gaaw a waaw tant jubul. waaw tant que jubunu du sedd tant que jubul bunu bunu bunu nu kii d'accord bunu bàyyi mu sedd am nga yaakaar Sénégal un jour dugg loolu la war a def d'accord loolu mooy li loolu mooy moom la war a def am nga si optimisme non mooy li mu war a def <laughs> d'accord man su fekkoon maa nekkoon place yu Diomaye moom ngay def damay génnee Sénégal CEDEAO parce que CEDEAO de toute façon day tas d'accord yóbbu ko AES. ok c'est pas que damay dem collaborer ak militaire yi que militaire la wala du ma d'accord ak ñoom. mais su ma demee AES mën mën nañ tudd beneen organisation mën nañ dindi AES. d'accord tudd des états du Sahel. dëgg la tudd le ñu nekk dans une confédération. ça c'est parce que le Sénégal le la Mauritanie le Mali le Burkina le Niger le Tchad. ak hmm. sud Libye sud Algérie. ñoom hmm. ñoo ñoo formé li ñuy wax la sa dëgg la donc ces ces cinq état la hmm. mën nañ constituer le Sahel nekk ci beneen organisation. macha allah. loolu am na solo en fait euh, damay euh, ubbil micro bi sama professeur le professeur Kars Grand maa ngi lay ziar salaamaaleykum. maa ngi delloo ziar Mr Bokar. naka taw féex yi. waaw ñu ngi sant alhamdulilah di nuyu auditeur ak auditrice su Walf FM 99.0. Hmm. di amaat contentement ci teewaat fii bokk ak jotaay professeur Arona. Hmm. et di am. contentement toujours euh, di teewe fii ci Black Label 99 point 0. macha allah di nuyu waa Black Label team yëpp. dëgg la ñu ngi lay fay woon di rafetlu si sa teewaay fii tey suñu plateau tey Mouzimo bi ak euh, le professeur Arona xam naa aussi li nga jot a tombé mooy euh, parce que aussi njëkk na développement si CEDEAO. Mm-hmm. pour wane na CEDEAO benn processus su néocolonialisme la maanaam politique néocolonialisme maanaam nasaraan si ñoo fi jëmmal CEDEAO. Mm. pour gën fi mun a ñoom. am beneen politique bu mën a jaare ci CEDEAO mais AS benn moom du ko gisee comme benn genre loo xamante ne mooy vrai image yu Afrique li mu ci développé bi ngay dugg saal bi dégg nga ko euh, ban réflexion nga waaw di xanaa peut-être euh, di delluwaat pour gën a sori foofu rek parce que aussi comme moom prof histoire géographie la li may wax moom moom moo koy gën a xam sax par rapport ak euh, Afrique ni mu nekkee woon benn zone bi nga xamante ne euh, zone xam-xam la zone civilisation la zone koom-koom la zone xeetu xam-xam yëpp la woon. Mhm. astronomie euh, médecine. Mhm. Euh, architecture. Mhm. maanaam ci wàllum yëpp wàllu xeetu jàng yëpp daal. Afrique amoon na fi. ba ci sax lu ñuy wax charte universelle des droits de l'homme au douzième siècle au Mali amoon na fa donc Afrique boobu noonu. Euh, li ko mayoon doole moom moo nekkoon nekk dëkku daluwaay dëkku xam-xam dëkku teraanga loolu moom moo nekkoon euh, identité Afrique parce que lu ko wutale ak yeneen puissance yi yeneen puissance yi euh, arme ak caay-caay la ñu nekkee puissance mais Afrique ci kaw xam-xam rek la nekkee woon puissance te loolu moo indi woon européens yi jamono boobu ñu nekkoon grec doon ñëw Afrique ak romains yi di fi jàng ba jëlee fi xam-xam dellu ci seen dëkk ñooñu nag bañ demee ba benn moment euh, si xam-xam aussi ñu bëtt ci tombek Égypte daanu ñoom ñoo dellu siwaat Afrique am ak ñoom ay rapport commerce euh, jékki-jékki commencé di leen euh, traduire en esclavage à des sujets yi nga xamante ne gisoon nañu beneen terre bu bees aux aux mu soxla ay liggéeykat ñu jëlee fi africain yi en tant que ñuy tuddee ay esclave mais dama naan ñooñu dañoo gore woon peut-être ñi ko doon def la ñu war a woowee mm-hmm. mais ay nit yu digne moom seen bopp lañ fi fekk jële leen fi par la force yóbbu leen euh, jële leen seen espace naturel changer seen tour euh, ñu nekk di wuyoo neneen am beneen culture mm-hmm. euh, après loolu aussi tamit ñu indiwaat benn système de domination parce que esclavage dafa xaa esclavagisme dafa xaas biin ñu teg lu ñu wax euh, colonisation colonisation aussi dem ba àdduna dund ay ñaari guerre yi nga xamante ne yeneen force yu bees dañoo génn yi nga xamante ne mosuñu am euh, ay terre ci Afrique muy URSS ak euh, Amérique ñooñu aussi ñu taxaw teg sur la table que ne dañoo war a distribuer waat yi par rapport ak àdduna bi mm. mais avant loolu Afrique euh, tracé woon nañ ko ba euh, defoon ko moom meelu ay dëkku européen maanaam ci conférence de Berlin. Mm-hmm. un ak deux. Mm-hmm. léegi Afrique boobu ñu tracé woon ci conférence de Berlin man dama naan Afrique boobu moo fi nekk ba tey. Mm-hmm. maanaam l' Afrique euh, de confér l' Afrique de Berlin. ñun tey Sénégal bi ñu nekk nii tey. di ko tiitaroo ak Mali gi ñu nekk wala Guinée bi ñu nekk wala. Mozambique bi ñu nekk wala et cetera et cetera dëkk Afrique yëpp maanaam ay dëkk la yu ñu morcelé balkaniser leen euh, jël ñi teg ci kaw ñi ci ay frontières yi nga xamante ne teguwul fenn ñoom ñoo ko fi bàyyi. mu nekk ay source de conflit. mu nekk éternel euh, recommencement bi nga xamante ne diviser pour mieux régner moo fi nekk. léegi nag àdduna doxaat na encore ba mur de Berlin daanu euh, ñu ne li ay liberté am na. Euh, donte la donte ne euh, liberté yooyu dañ ko def entre guillemets parce que mur de Berlin ba mu daanoo moom moo indi libéralisme bi mm-hmm. euh, parti politique yu bëri mën a exister mm-hmm. liberté d'expression mën a exister ak naissance rajo privé yi aussi tamit ñu avancé ba ay télévision mën a am ba tey ci jamono bi ñu nekk muy jamonoy internet mm-hmm. léegi loolu lu ko waralaat tey mooy puissance bi ñu jàppoon na daanu na dafa jógaat ànd àndaat aussi ak yeneen puissance parce que Chine tey ji puissance la euh, mën nañu wax ne Inde puissance la euh, ay dëkk yu mel ni ay Pakistan parce que puissance quelquefois dafay nekk économie walla militaire te dëkk yooyu yëpp dañoo nekk ay dëkk yu peuplé Afrique nag pendant ce temps esclavage jaar na fi dépeuplé ko colonisation naka noonu ak ay guerre ak ay feebar ak ay famine ak yi kenn xamul doublé euh, ignorance bi fi am ak yooyu yëpp mu nekk ay mbir yi favorable pour africains yi ñu leen di dominer parce que pour nga dominer benn zone déjà peuple si peuple bi rek nga mën a nga mën a basé wu. donc nag loolu c'est cultivé en nous. Mm. ba tey euh, sentir nañu que ne am na beneen force bu jóg peut-être jàpp nañu war na mën a nekk suñu allié ñu xeex ak suñu ancienne euh, domi suñu ancien dominateur mm. maanaam cette ancienne force bi ñu doon coloniser. Mm. parce que déjà ñun moom la ñu sentir ne moom moo ñu teg euh, mbaggam wala moo ñu teg loxoom ba mënuñoo jóg mm. donc de ce fait ku ñu promettre na kii mën na nga ànd ak ñun mën nañu ànd ak yow ñi daaneel ko maanaam kooku dañu ànd ak moom AES man loolu laa ci gis donte ne CEDEAO aussi tamit dafa collaborer ak beneen force pour moom tamit existe en tant que entité bi nga xamante ne juste ay nit yu euh, hérité benn privilège la pour ñoom donc mm. comme jamono yi euh, les quatre communes ba muy am les euh, nu mu tuddati les citoyens ak les ak ak ak les indigènes euh, donc loolu moom moo nekk di am ba tey ñu ñëpp ay sénégalais lañu mais ñëpp xam nañu que ne sénégalais yëpp yemuñu hmm. wala ñu ñëpp ay maliens lañu mais ñëpp xam nañu malien yëpp yemuñu hmm. ñi nekk ci élite bi nekk ci assemblée yi parlement yi nekk ci euh, exécutif bi nekk juge yi ñooñu dañu am pour privilège bu ëpp ci kaw seen askan. seen askan dañuy xiif ñoom ñuy dund ci benn luxe bu insolent. loolu nag moom mooy jur benn peut-être prise de conscience nit ñi jàpp na ne que ne dafa am juste euh, benn équipe bu fi nekk ñuy ay ayloo ci ay démocratie nangam nangam mais en fait ñoom suñu changé suñu ay conditions. Mm. loolu poussé muy am ay coup d'état donte ne coup d'état yi njëkk yi njëkk yi am Afrique. ñi doon nekk ci ginnaaw moom mooy euh, ces forces étrangères. Mm-hmm. bu ñu demee ba am ki nga xamante ne favorable tul euh, nekkatul fa ku favorable ci ñoom ñu armé keneen kooku daaneel ko kooku bu demee ba benn instant mu bëgg a fipp ñu armé waat keneen mu daaneel ko. Mm-hmm. léegi nag ñoom peut-être dafa am beneen force tam bu jógaat pare pour dooleel putsch yooyu noonu kon dama naan ba tey Afrique sooram nekkul jógewul ci moom maanaam li muy xeex nii pour bëgg ko changer. Mm-hmm. nekkul moom moo force bi nekkul moom moo yor xalaat bi mais dafa am keneen ku ko ko yoreel tant que mu ngi mel noonu rek dama naan ñu ngi jëm encore ci beneen guddi gu bët satagul mm. donc loolu question bi ñu war a njëkk a teg euh, ci instant bi ñu toll nii nekkul CEDEAO ci sama xalaat nekkul AES mais lu ñu lu ñu war a teg moom mooy cette unité africaine mm. unité africaine moo ëpp doole loolu yëpp mm. te unité africaine boobu noonu commencé na euh, ci suuf ci peuple yi mais peut-être politiquement ak sur le plan institutionnel la toppagul mais cette conscience est déjà la et jàpp nañ ne que ne Afrique war na mën a moom boppam Afrique war nañ mën a ànd nekk benn loolu tey jàpp naa ne euh, xëccoo sax pour nekk président benn dëkk si dëkk yi ndaw yi maanaam moom mooy jéem a continuer li nga xamante ne moom moo fi amoon muy colonisation amaana bee colonisation Euh, français yi la woon ak euh, anglais yeeg ak euh, espagnol yi mais peut-être bi colonisation russe la entre guillemets wala colonisation chinoise et cetera et cetera parce que ñoom ñoo tey jii ñi nga xamante ne ñoom bokk nañ cey ci les nouveaux maîtres du monde mm-hmm. donc man ci côté boobu laa koy laa koy approché te xam naa ne nag bu ñuy jàngat dañuy jàngat fu sori mais mën nañ aussi jàngat ci li xew tey mais Afrique tey lu ñu war a gën a mën a wax teg ko ci taabal bi moom mooy Afrique nan lay doonee benn suñu doonee benn dinañ nekk un marché hmm. bu puissant parce que Afrique def na un milliard euh, trois cent hmm. su ma juumul donc loolu en terme de poids économique lu rëy la marché bu mag la hmm. tey loolu rek mën na mën na développer Afrique su ko su africains yi conscient ci loolu daaneel frontières yooyu nga xamante ne moo fi nekkoon di leen diviser te ba tey moo nekk di leen diviser ndax kenn remettrul en question ces frontières là mais kenn ku si nekk da nga cantonné wu ci frontière yooyu euh, ñu def tegoon en si conférence de Berlin. Hmm. nga nekk si biir naan da ngay libérer Afrique. kon donc dama naan cette liberté peut-être c'est un slogan. Hmm. c'est peut-être c'est c'est un idéal. mais en fait lu ñu war a wax moom mooy nan la ñu war a fexe ba Sénégal ak Mali ak Gambie ak Guinée nekkaat benn. man bu fekk fekk dégguma loolu dama naan lii benn benn kii la rek benn. benn ay quelque gens ñoo ñoo peut-être ñoom ñoo jàpp ne am nañu opportunité pour jël nguur jël nañ ko mais en fait delloowuñ ko africains yi parce que africains yi lu ñu bëgg moom mooy sénégalais bi hmm. wala guinéen bi bañ a sentir boppam étranger en Afrique hmm. parce que ces question là se pose tey jii am na ñuy prôné benn wax sénégalais yi dañu war a am carte séjour hmm. nangam étranger yi et cetera et cetera mais bu koy buy wax loolu du wax chinois bi du wax russe bi du wax français bi mais africain bi ni moom lay wax na am carte séjour bi donc loolu nekk na la nga xamante ne tey dama naan euh, ñun dese nañ lu bari donte na nag ga nit ñi bëgg nañ changement bëgg nañu révolution mais ban révolution ak ban xeetu révolution ak ci ban temps lañ ko war a dox loolu nag hmm. euh, jeunesse bi consciente consciente na si avant ça avant ñoom yeneen génération yi conscient conscient woon nañ ci. Mm. léegi nag cette synergie d' ensemble maanaam ñëwoon démb bu mu nekk ay xale kese na nekk ay mag na nekk ay ndaw na nekk sax ñu juddoogul mu nekk benn li nga xamante ne dañ ko fiy teg ba ci suñu école bi ñuy jàngalee ñoom ñu xamal xamal ñu ne que ne ñun fi ñu nekk nii moomaguñu suñu bopp. Mm. mais à chaque fois ku nekk yor na drapeau. ñu ngi feetu ñu ngi am nañu hymne ñu ngi feetu indépendance mais en réalité économiquement euh, da nga dépendre si keneen. sur le plan sécuritaire da nga dépendre si keneen. sur le plan sanitaire da nga dépendre si keneen kon Afrique boobu est-ce que libre na. kon donc damaa jàpp ne que ne war nañu xeex. pour hmm. am liberté moom moo gën peut-être liberté yi ñuy wax nii peut-être mu yem ci liberté de manifester liberté de parler et cetera et cetera. alors que yeneen liberté yi mënuñu ko amal suñu bopp. donc euh, man loolu moo ci sama. Hmm. contribution. macha Arona dafa am loo si dolli bala may dellu si dem si beneen point bi monsieur Arona. oui mais dafa am loo si dolli bala may dem si beneen point bi. ma ne il suffit pas il suffit pas d'être prof d'histoire pour connaître la réalité africaine. d'accord. jaru ko. waaw eh, il suffit pas il suffit pas <laughs> d'être un bon géo quelqu'un géopolitologue pour mën a xam réellement ce qui se passe en Afrique gis nga ce qui se passe en Afrique. même ñi nekk ci commentaire yi même ñi ñiy commenter. waaw. jeunes yi am dix huit ans vingt ans. Hmm. ils la réalité. dëgg la parce que éveil éveil éveil des bi dafa def benn masse dafa def benn tollu bu nga xamante ni. Hmm. maintenant tout le monde connaît la réalité. Hmm. dëgg la léegi li des mooy même solution yi. xale yi xam nañ ko su ma nee xale yi mooy ñi nga xamante ni deux mille lañ judd. oui ñi judd deux mille. waaw ñoo am deux ñoo am vingt quatre ans tey. dëgg la ñi judd ay quatre vingt quinze ki deux mille ñooñu xam nañ réalité bi xam nañ par où passer. pour sortir de l' ci gouffre bi mu nekk di mais nag yow su ma déggee sànq dafa mel ne le futur de l' Afrique euh, dafa mel ne révolutionnaire yi ñoo ko war a gën a mën a yor pour Afrique mën a gis le bout du tunnel révolutionnaire mun a nekk peut-être ñuy def putsch <laughs> les hommes en tenue yow sànq sa développement foofu la ma gën a orienté quoi. au lieu au lieu moo Poutine ñu utiliser révolution parce que Afrique jot na def ay révolution yu mu réussirul. d' accord sànq def naa historique gu yi jot a am islamiste armée animiste armée populaire. d' accord culturelle def na ay révolution révolution révolution. d' accord maintenant des desaat na yeneen révolution dinañ demaat ci ay révolution yu dul jeex. parce que révolution am na morale am na mental am na hmm. psychologique am na intellectuel am na linguistique. ça c'est parce que la langue mooy premier frein bi. ah bien sûr. am na aussi militaire. dëgg la physique. maintenant bu ñu yeggee fu nga xamante ni nag euh, sës na. Hmm. ñu ngi soog a yegg ci révolution physique bi. physique bi mais africain bi commencé boo xoolee. Euh, y' a vingt organisations togolaises yi nga xamante ni def nañ pétition ñun ñëpp pour soutenir Guy Marius Sagna parce que dañ ko bëgg a génnee CEDEAO. macha allah. ak les Togolais ak les les les Guinée Bissau les Bissau Guinée hmm. ñi ngi commencé di bind di di wu ak di déposer ay lettres ouvertes hmm. pour wane ni Guy doit rester à la CEDEAO ça ça montre que l'Africain danoo tëjoon ay bëtam dégg la téye gi hmm. mais mosul doon dof dégg la li ñuy jàngal yëpp c'est pour ñu pour ñu pour ñu gën ñu gën ñu gën ñu xóotal. macha allah ak gën ñu suuxal encore une fois. dëgg la ci ci kàmb gi pour ñu gën a mën a bañ a. yeewu mais mais CEDEAO tey bu dàkkoon Guy Marius mel na ñoom nekkoon ñooy démocrate <laughs> ah. CEDEAO tey bu ñu poussé Guy Marius maanaam bu ñu ko génnee day mel ne ñoom nekk ñooy démocrate ah. non bu ñu yow nan ngay jëlee le président sénégalais. oui. pour mu gérer la médiation ak pays AES. waaw. nga jël un parlementaire sénégalais. oui. nag biir CEDEAO. waaw nga ni da koy génne. <laughs> léegi yow ki nga ni da koy génne moom dëkkam nga yaakaar pour mu jëlil la ñetti ñi <laughs> dana waar macha allah. léegi yow boo génnee Guy Marius Sagna alors que yow tu comptes sur le Sénégal. pour que CEDEAO amaat doole. day def médiation bi. parce que Diomaye c'est l'institution. mais Guy maris c'est le peuple. ça donc yow bu fekkee yow euh, le citoyen sénégalais moom nga traité noonu. Hmm. comment moom jomaay l'institution bi war a incarner la la parole la voix la diplomatie. Hmm. dem di la négocier yow. Hmm. macha allah loolu am na solo xam naa ne ñëw na si vif du sujet bi comme sax ñu mën a wax si Covid ak vaccin yi nga xam ne <laughs> moo waral suñu jataay tay bi parce que si keroog euh, vraiment euh, sama co-animateur bi teg na fi vidéo mu jaaxaloon ñu toog nag man li ma njëkk def man mooy parallélisme. parce que développement bi nga si indi man gisuma si sam bopp xam naa may baal ñu defaat tuuti nga defaat tuuti aussi remonté waat si Covid bi comme ça ñu mën a ñëw si vif du sujet bi macha waaw. Hmm. <laughs> xam naa bu fekkee bu fekkee mën nga ko tegaat je sais pas xam nga da nga tegoon euh, bien bu neexee nga nga def ko survol rek quoi. su bu la nga def ko survol. comme ça parce que tey boo xool euh, Sénégal yàgg na def fi débat vaccin. Mhm. vaccin commencé na ba ñuy tokkanteel xale yi par voie mhm. am yàgg na leen vacciné ba Covid bi ñëw aussi ñu vacciné wàññu defe naa yow sa sujet si foofu nga ko indi woon dem nga ne balaale suñu ñoom Bill Gates ak ak affaire yooyu pour wane ne dafa nekk benn frein boo xamante ni pour ralentir ñun suñu développement ëllëg la maanaam li nga xamante moo war a yokk tey africain yi la masse peuple bi quoi loolu daal nga laa mënoon def en résumé mais aussi bu ne nga defaat d'accord oui xam nga euh, l'information ou bien les choses. sont tellement nombreuses ba. yow booy booy booy expliquer da ngay dem mujj gi sax tu tu te tu te perds dans dans dans tes parce que tellement fi ñu jaar ak li ñuy dund ak li xew dafa bari ba nga xamante ni y a de sujets énormément de choses yu nga xamante ni bu ñu ci doon wax fii ba suba duñ ci jóg. maintenant li indi wax ji wala lu indi débat bi mooy président Diomaye dañ ko invité woon ci benn organisation bu tudd Gavi. Gavi benn collectif la bu ay scientifique séq buy lutter pour euh, la vaccination ak l'immunisation des humains. Mhm. maintenant Gavi boobu noonu Bill moo investir à hauteur de cinq milliards de dollars. Mhm. ci organisation boobu noonu. Mhm. bi nga xamante ni OMS organisation mondiale de la santé moo ko soutenir moom organisation mondial de la santé boobu noonu. Bill Gates mooy actionnaire bi majoritaire à hauteur de onze virgule cinq pour cent ci xaalis. bi doxal organisation mondiale de la santé. maintenant ñu invité le président sénégalais mu dem fa moom mooy moom moo nekkoon le seul président africain bu jëloon parole Kagame mi ngi woon ci biir foule bi mais invité simple la te Kagame seen pion la en même temps su ma nee seen pion la mooy Kagame guerru kongo bi moom ci moom la tubaab yi di jafandu. par Rwanda la ñuy jaar pour écraser Kivu ak Goma pour jël richesse or ak euh, diamant bi am Congo Rwanda la ñuy jaar pour écraser loolu donc moom Rwanda bu ñëwee toog bu ñëwee toog dafa ñëw toog juste parce que dafa ñëw ci këram wala dafa ñëw ci njabootam donc Gavi nekkoon réunion bu nga xamante ni danoo invité le président sénégalais mu dem fa. bi mu fa demee discours bi mu jël benn moo laa ci benn phrase laa ci jël mooy moom il a accepté la souveraineté vaccinale ma ne mais attends président ñun lan lan soxla ci souveraineté vaccinale contrairement ak souveraineté alimentaire ñaar yooyu ban lan gën a ban moo ëpp importance maintenant si laa waxee ni peut-être que moom yëgul ni réunion woowu noonu ki ko porté Bill la tudd Bill Gates boobu noonu mooy ki nga xamante ni moom moo fi promouvoir moo fi doon promouvoir wàññi réduction taux de natalité moom moo promouvoir wàññi taux de fécondité moom moo mettre en place ay OGM yi nga xamante ni euh, ay ay substance la nga xamante ni bu laalee sunu eng bu engrais bi wala mu laal sunu tool yi sunu récolte bi sunu rendement yi day faible en plus day rey bio bi fa nekk processus boobu noonu moom moo ci moo nekk ci ginnaaw donc bu fekkee moom. moo invité suma président mu ñëw ñuy waxtaan ci souveraineté vaccinale pour mettre peut-être benn entrepôt wala benn projet wala quelque part à à Dakar pour di def fabrication de vaccin ma ni ko un vaccin boobu wóoluma ko un de lu tax parce que bi ñu fi jindee Covid bi lu jiitu Covid bi ñoom yoroon nañ ay plan yoroon nañ ay stratégie yu ñu mettre en place yu nga xamante ne dafa dox ci réduction de la naissance mais Euh, réduction de la natalité de la fécondité mais aussi rendre frêle l'africain comme l'africain ma ni ko il faut faire attention hmm. man en tant que patriote maanaam le président foofu nga jëm baaxul parce que ña ko tëgg ak ña ko ña koy wut seen pexe bu sotti woon ñun 2024 duñ fi ne parce que ñoom ñoo programmé woon ay vaccin yi am eh, IRM mooy ça di dire ay puces la yu nga xamante ni day nekk à l'état liquide bu laalee sa deret ak sa tàngooru yaram mu dem mu refroidir muy joxe ay signaux comme sunu suñu carte d'identité ñu mu amee ay puces yu nga xamante ni kenn ku ne foo ne ci àdduna mën na la localiser ma ne dinañ yegg fu nga xamante ni bis boo nekkee quelqu'un ki dérange wala nga nekk ku nga xamante ni da nga bëri wax wala da nga da ngay ngay contrer seeni plan bouton la ñuy bës delete ndax science yegg na fu nga xamante ni mën na yegg ak foofu nit donc loolu moo nekkoon lu nga xamante ni ci loolu laa jublu woon ak loolu laa bëggoon expliquer pour mu leer <laughs> dof macha allah kon loolu am na solo eh, parce que man bi ma ko njëkkee dégg parce que man li gën a doy waar sama xel mooy eh, luy wàññ population mondiale bi surtout en Afrique damay ragal na est-ce que nekkul benn genre mbir boo xam ne dañu koy tiitale walla mu nekk mbir moo xam ne dañuy ragaloo vaccin yi nga xam ne moom moo ñu war a wéral xam ma def xam bi dina ñëw pour wéral la hmm. dëgër la may la survie am nag ay mercenaires yi ñëw yoo xam ne da lay tiital ak yooyu maanaam mercenaires yooyu naan la bul jegee vaccin bi sax ñoom sax boobu mootul ñoom ñoo bëgg yow nga am virus bi dee maanaam est-ce que réellement tout diminution population boobu ça existe ma loolu sama ba pare. effectivement. d'accord parce que si seeni programme yi fuité. daf ci am yoo xamante ne Donald Trump ci boppam moom moo ko génnewul. moom moom Donald Trump lu tax américains yi sawaruñu woon ci ay mbiram dafa nekkoon ku nga xamante ne. Hmm. dafa collaborer ak euh, Poutine. Hmm. pour mettre en place ay programmes yoo xamante ni du arranger l'humanité dégg donc ci programme yooyu ñu mettroon en place. Hmm. ñoom dañ ne woon il faut que ñu dem ci monde bu libre. te pour ñu dem ci monde bu libre il faut ñu génn ci domination bu nga xamante ni benn clan moo ko téye. te clan boobu ko téye dafa am aspe religieux am aspect militaire am aspect financier. dégg ci ay documents yi nga xamante ak discours yi nga xamante ni bu Trump la président américain bu fuité hmm. moom moo ni woon ñi seen mission bu réussir. Hmm. peuple africain dootul amati dootoo gisati kenn ci kaw suuf. d'accord donc du bu fekkee ñoom danoo promouvoir wala dañu wax ni population mondiale danoo bari te il faut ñu dem à la réduction. Hmm. il faut ñu dem ci réduction pour que ñu mën a def ñu mën a contrôler équitablement revenu yi. là man bu fekkee man dama dégg lool ci ku nga xamante ni ci ñoom la bokk. mu jiite leen. Hmm. mu génn def discours boobu. Hmm. te tey mu nekkaat ki gën a jege pour nekkaat président dëkk boobu noonu. waaw du ma ko weddi. d'accord su ma ko doon weddi mooy. Hmm. ñu ne ko. dëgg wala ñu tëj ko moom 54 chefs d'accusation lañ def Donald Trump. yëpp yëpp bu ñu ko yóbboo tribunal yëpp 54 5 xaw ma 53 yëpp da ko réussir. d'accord amul benn buñ ko amul benn buñ ko ci buñ ko ci. buñ ko ci tëj. d'accord 54 chefs d'accusation yi. depuis deuxième depuis deux ans de fonction ba nii ñi ngi koy yóbbu tribunal. d'accord amul benn laalox bu nga xamante ni jàpp na te tey moo gën a probable. pour nekkaat ki ki ki jiitawaat États-Unis macha allah donc moom bu fekkoon moo waxoon loolu. jamono di dox. ñu pikiir nit ñi vaccin yi génn. docteur <laughs> Raoul génn en français. waaw ni yéen africains yi feebar bii du seen feebar. ndax jot ngeen naan yéen ñëpp chloroquine. flavokin amojakin wala nivakin wala garabu niima yi ngeen di romb ak yooyu noonu ak nebedaay yi hmm. du leen def dara hmm. ku ci amati loo metti jël ko hmm. Trump aussi ni na américains yi jël chloroquine bi te génn dem parce que lii du feebar tey bu fekkee feebar boobu noonu réussirul parce que li nu waxoon ci feebar bi mooy à un mètre soo ko amee ma am ko soo ko amee dama koy am soo jàppee lii su ma ko jàppee dama koy am duñu bokk kaas duñu bokk duñu bokk du duñu bokk bool duñu nekk ndoo ci transport yi loolu la ñu waxoon ci covid bi d'accord restez chez vous ñun ñëpp ñaata nit a ko am ñu bokk même endroit keneen ki amu ko donc c'est pas la maladie qui tue d'accord mais derrière la maladie la programmation qu'ils ont mis en place c'est ça le danger muy le vaccin d'accord lui-même d'accord parce que ci vaccin bi moom programme bu nga xamante ni hmm. day dem ci vers la réduction de la population mais mais tey boo xool vaccin boobu xam nga fii tamit Sénégal tey y a de professeurs yoo xamante ni xanaa war na mën a saytu mbir mi. Mhm. bala ñu koy injecté population bi dafa mel ne kon Sénégal dafa dekk dëkk boo xam ne amul amul buntu quoi wala amul rideau da ngay ñëw dugg quoi yaakaar nga ne avec euh, xam boo xool ñun suñu monde médecine dafa bëri doole. Mhm. tey ñoo formé les Marocains ak pays yu bëri ah, fii la ñuy jàngee yaakaar nga ne dara dina ñëw di noot askan à l'insu de nos jeunes que ñun ñoo defar vaccin yi. non mais saytu bi laa wax saytu bi. saytu bi xam nga ki lay importer produit bi. indil la ko yabal la ko ci avion wala defal la ko ci congélateur ñëw jox la ko. kooku moom rek moo xam substance yi nga xamante ni initiale à la base moom moo ko ci def. d'accord parce que yow nekkoo nekkoo woon ci tribunal bi fekkee woo ko moom ba mu koy def. dëgg la donc amoo benn amoo benn bët wala amoo benn gis-gis. ci moom lan nag lan la def. ba indil la ba la lii. ça c'est vrai. donc yow bu fekkee yow amoo benn technicien bu bokk Pfizer wala Sanofi wala si seen laboratoire yi nga hmm. xamante ni ba ñuy composé le produit initial amul kenn ku fa nekkoon hmm. ku mën a wax ni lii ak lii lañ ko composé da ngay hmm. ñëw ñu jox la ay formule grand bi wax na ko léegi école la école la bu nga xamante ni ñoom ñoo ko programmé ñoom ñoo ko bind waaw boo demee ñoom ñooy ñoom ñoo lay jox composition yi da ñëw ñu ne composition bi lii lii la yow loolu ngay gëm mais mais nag war na mën a diagnostiquer ah, jël affaire bi dugal ko ci laboratoire pour mën a diagnostiquer xool lan moo fa ne ak lan ak lan bu loolu jàllee aussi sama benn question comme ça ma jox kàllis mooy concernant tey foofu jomaay toogoon man dama jot aussi ñoom tamit aussi vraiment am nañ une masse derrière benn staffing bu dëgër tey boo xool ñu mel ne ñoom am ama jaay ko aussi ñoom war na mën a maîtriser politique gu ay ay euh, maanaam euh, bu euh, yooyu ngay wax noonu maanaam Bill Gates ak yi si des yaakaar nga ne tamit. war na mun a dem foo xamante ni dafa dem hasardeusement sans xam contenu ou bien fond beeg forme ba. Euh, Cheikh Omar Diagne. oui ak ñu mel ni Cheikh Omar Diagne. ak ñoom président Diomaye. oui. mën nañ la jox invitation nga dem. waaw je suis d'accord nga dem. mais boo demee am na discours booy tenir. discours boobu man moo may rassurer. d'accord moo may wan ni yow. oui xam nga fi nga jëm wala xam nga li nga bëgg def. wala xam nga ñoom seen politique. mais quand il a parlé de souveraineté vaccinale. oui moi je me suis mais c'est clair lan lan réellement est-ce que le Sénégal a besoin d'une entreprise de fabrication de vaccins hmm. wala une entreprise de manufacturation des produits dérivés du pétrole hmm. parce que pétrole bii ñuy manque nii liñ ci hmm. am dañ koy jël yóbbu ko Europe Europe transformé nu ko indi ko pare teggil nu moom njëgu transformation d'accord léegi ñun lan moo ñu tee am <laughs> manufacturation boobu noonu fii xam ni pétrole bu génnee brut Hmm. dañ koy transformer fii brut génnee suñuy dérivé jaayal suñu bopp jaay leen ñoom donc yooyu je me suis dit ni question yooyu ñoo gën a urgent ñoo gën a hmm. nekk question yi gën a urgent que question yi nga xamante ni da dem naan oui on est d'accord pour une souveraineté vaccinale quelque temps après ñu ñëw injecté la ay milliards ubbil la benn jam ñaajo wala benn sébikotaan hmm. ngay xëy di produire ay vaccins yi nga xamante ni après mën nañ dox ba yegg ci euh, obligatoire wala yegg ci à la naissance wala même sax à la naissance ñu lay dóor ay vaccin yoo xamante ni après yow xamoo origine bi ak authentique bi parce que ki la ko jaay. Hmm. moom moo ne woon yow nit ku ñuul ki da ngaa bare ci kaw suuf. Hmm. te sama pexe bu sottee dama lay wàññi. d'accord donc kooku bu la joxee pikiir ni la pikiiral say nit pour ñu jud pour ñu pour ñu dund. Hmm. man mun ma ko gëm parce que loolu essayé nañ ko ci kaña yi ak golo yi. essayé nañ ko ci li ñuy lekk. ak li ñuy naan. d'accord def nañ ko aussi ci produit ak légumes yeeg fruits te gis nañ ni encore une fois que. produits alimentaires yi ñuy yi ñuy lekk. am na ay déformation donc bu fekkee def nañ ko foofu ba xam ni li ci nekk bu ñu paree jublu ci nit yi man am naa droit am méfiance. d' accord daal di taxaw xam am tuuti retenue nii nii seen programme bu sottee fii la jëm d' accord Kals. yes. Hmm. ayca day question wala. waa bon yow loolu sentir ba xam aussi eh, ban rebondissement nga si mën a indi ou bien question aussi c' est à vous de voir. waaw bon mun nañu wax ne que ne euh, épidémie mondiale moom mun nañu wax ne hmm. euh, du guleet quoi. Hmm. parce que yàgg na amay feebar à chaque fois aussi tamit ñuy amay vaccin et vaccin aussi nekkul la première fois ay nit euh, di ko joxoñ baaraam mm-hmm. am na benn kilifa euh, yàlla na ko yàlla dolli leer mm. euh, yàlla na ko yàlla yokk yërmande muy muy din sàmm Cheikh Samba Diallo mu ngi wax ne que ne moom daf koy yéem bu gisee ab xale ñu mën kaa may juróom-ñaari vaccin yëpp gratuit <laughs> ñu may ko <laughs> moom te waajuram moom bu feebaree kenn du ko may sax benn vaccin nee na ñaari vaccin yooyu lu tax mu gratuit moom yéem na ko hmm. donc moom mooy euh, li professeur di wax rek quant à Bill Gates moom euh, Bill Gates moom euh, nit moom ku bëgg virus la quoi parce que mu ngi Microsoft ñu ngi ci monde ordinateur yeeg <laughs> internet foofu virus am na fa dégg donc kuy jaay antivirus mën nga créer virus. dëgg la donc de ce nu mu amee ci ordinateur yi aussi boo ma may antivirus ñoom ñi koy defar di ko jaay di defaraale ay virus pour contrer euh, di defaraale antivirus pour contrer virus yi loolu dañ ci am xaalis bu bari. Mm-hmm. buñ bu ñuy wax nag industrie ba dugal lu ñuy wax pharmacie industrie pharmaceutique euh, ci monde capitaliste foofu sa xel mën na ñaaw parce que kuy defar arm moom bu guerre amul du jaay arme moom tamit dina créer guerre hmm. donc booy ku ñuy jiiñ dëmm ngay soccoo yeelu liir yow ñaa ngi wax euh, réduction de la population mondiale adduna bi am benn feebar ba nga xamante ne dafa lëmbi adduna bi yëpp yow mi doon wax na nga bëgg a wàññi lim bi nit ñi toll ci àdduna bi nga ne yow am nga euh, antivirus bi loolu day tey xel si ay nit yuy xalaat léegi nag mën nañ ne ñi ciy wax est-ce que war nañ wax parce que amuñu xam bi mais ñun amuñu xam-xamu yàlla mais dañuy toog di questionné wu ci yàlla. Hmm. li ngay mooy douter balaa ngaa gëm yàlla da ngay douter ba pare. Hmm. est-ce que yàlla am na bu amee nu mu amee et cetera et cetera et pourtant ñun amuñu màkkaama nekk yàlla. Hmm. mais xoolal ñu ngi xalaat ci yàlla suñu borom léegi nag waxuma la nag benn nit bu taxawee fee moom du euh, yëngatuwul ci santé moom ci beneen domaine la nekk. di investir nag ci loolu en tant que capitaliste buy gañ xaalis. Hmm. waa tuddee boppam philanthrope ak yooyu ak yooyu. ba pare am lu mu gëm ci àdduna bi. parce que gëm nañ ne que ne nit ñi bu ñu baree hmm. euh, maanaam dañuy yokk àdduna bi saturation àdduna bi day polluer te ñoom. Hmm. xalaatuñu ñoom wàññi seen alal parce que ñoom ñoo ëpp alal ci àdduna bi seen alal ji ñu yor mën na dundal àdduna bi yëpp mais ñoom. dañoo ne na nit ñi wàññeeku ñoom ñuy gën a am alal ndax ñoom ñi gën a am alal ndax ñoom ñoom ñi mën a moom àdduna bi hmm. moo tax ñu saax-saaxi géej gi ba géej gi amatul jën hmm. suuf si yëpp ñu yàqu ko hmm. wala buñ ko yàqul ñu indi la beneen produit buñ tuddee OGM organisme génétiquement modifié def nañ ko ci vache vache yi ba am vache folle def nañ ko ci ganaar yi ñu ngi ñu ngi lekk rek xamuñu sax lu ñuy lekk grippe aviaire léegi ci mbay mi lañ ko dugal léegi organisme génétiquement modifié yooyu booy xool bu ñu la ko indilee ba nga teste ko bu dee limon la limon bi dana toll ni pamplemousse. waaw <laughs> su ko defee nga ne ah limon bi de baax na. rendement yi day bari. ni engrais bi baax <laughs> léegi yow di nga am limon yi nga te baax de mais. doo am jiw. Hmm. Hmm. dañ daan faral di wax lu jiw a jeexul jógu fa. Hmm. waaye loo yoratul jiwam mooy jóg na ci say loxo. sa dund nga jël ko dénk ko beneen nit ba nga xamante ne moom dafa ne. non dooguma la sax. orange ak pamplemousse yooyu. Mhm. léegi raar na nga gis si nga gis doom. mooy mooy jiwu bi may wax. waaw mooy doom da ngay ñëw màcc ni mu mais doom ba. ngay wër ab dootoo gisati doom ba. léegi nag nit ñi dañuy ne sax mm. yii ñoo gën a baax parce que amul doom. dëgg moo gën a bëri ndox. <laughs> lu amul doom loolu daf laa war a yéem yàlla loo lu mu defar def sa doom ba. dëgg la c'est parce que dafa bëgg muy régénérer wu. naturellement. mais bu ñu demee ba nit ñun suñu àdduna lépp ñu bàyyi ko ak ñoom intelligence ñu def ko artificielle. lu ñuy dund lu ñuy dundee lu ñuy dundee aussi ñu dugal ci seen euh, science ak nangam nangam ba génnee nature bi éliminer nature bi carrément. Hmm. même même la reproduction des êtres sax ñun en tant que ay nit ay humains. Hmm. ñun suñu reproduction mën nañ sax dem ba benn instant dañu naan jaratu ko parce que ëmb dafa metti hmm. politique yooyu yëpp dina ñëw appréhender ay loi lañ koy def. jigéen warul ëmb quoi égalité. in vitro yi ñu koy commencé jël sperme góor. ak ovule jigéen dugal ko ci kaaf. c' ça. Hmm. léegi daf toog 9 mois après ñu jéem a xool nu mu nu mu dundee. léegi nag saay-saay dafay bëri pexe. Hmm. tout le temps ñoom ñoo nekk ci médias yi suñ débat yi ñu nekk sax di def xam naa ñoom ñoo koy alimenté pour ñu ñuy wax ci. <laughs> oui effectivement. parce que buñ ciy wax. dana am ñu wax ñu dégg leen. parce que mais dana am aussi ñu weddi. Hmm. te ñi leen di weddi ñoom ñooy si seen solde la ñuy nekk. d' ay borom xam la ñuy nekk. ñooñu seen bopp rek lañuy xool parce que dañu naan lii comme mënuñu si dara. Mm. bàyyi ñu ànd ak borom alal yi sacrifier population loolu lañ fi gis te loolu yàgg naa am. Mm. ndax ba ñuy rey ay 6000 euh, nit ca fële Rwanda. Mm. Utsi ak si ñoom xamoon nañ ne que ne xamoon nañ ne que ne lii juste benn politique la rek te tey jii ñu ngi wax ci Kagame. ak nam fa nekkee ak tey jii. ni mu nekkee benn virus ci Congo. virus la bu Kagame ñu ngi koy xoolee comme benn président modèle. alors que mais en réalité. Kagame moo rey Congo. c'est ça te kongo rek mënoon di dundal Afrique. loolu Cheikh Anta Diop wax na ko bu yàgg. macha allah donc. Euh, hmm. jeunesse bi tey. Hmm. bu ñu jël kàddu. c'est bien man dama koy rafetlu ah. mais damay bëgg tout le temps rek. Euh, ñu maanaam kàddu yi tamit mën nañ ko mën ñu def ko ay kàddu yu convaincant. Hmm. convaincre Euh, c'est mieux que vaincre. parce que mën nga xeex taxaw ci mbedd yi taal tëg tëg tëg mais yow convaincre kenn. parce que nit ñi dañuy dem ba ragal la ñu bàyyi la ak affaire yi. mais en fait kenn àndut ak yow. bu ñu gisee keneen ku pare pour taxaw dañu àndaat ak moom wàccee la fi. mais boo convaincre nit bu la neexee dem tëdd nelaw. macha allah man jàpp naa ne comme li seen si def. jàpp naa ne lii. <laughs> dañ ci war a waxtaan. dëgg la keroog ba nga waxee moo tax ma envoyé le message bi nga ne ki wax lii. Hmm. wax bi mu wax ëpp na. procureur dañ ko war a euh, maanaam jugé. <laughs> ma ne noonu nañ ko diir rek. dëgg la su ko defee mu nekk xalaat contre xalaat. d'accord mais su fekkante ne tey jii daf see tudd suñu président. Hmm. amaana daf ko bëgg protéger moo tax mu ne xamul. dëgg man ci sens boobu laa koy xooleel quoi. Hmm. ko bëgg protéger peut-être am am nu muy demee sax xam ne mu bëgg ko protéger. ok ne xamul. dëgg la pour ñu jàppee ne xamul ñu bañ a dal ci kawam. Hmm. mais moom lii lu ko ëpp doole la. d'accord te bu ñëwee am na lu mu soxla ci ñoom. Hmm. amaana bu bañee teew foofu duñ ko ko jox. mu dem teew rek xam lu ko fa yóbbu. macha allah buñ ko bindalee discours mu wax. mais xam na la muy def. d'accord donc man ci sama euh, njort. man noonu laa ko gisee. d'accord macha allah naa ne nag euh, africains yi war nañoo euh, mën a jógal seen bopp. Mm-hmm. d'accord lépp luy faj lépp luy euh, kaaraange. Mm. lépp luy yeete ñoo ko war a teel suñu bopp. parce que yeete mu ngi ñu ngi ko basé wu ci école bi. Mm-hmm. te école bi nag lu ci ëpp nag day nelaw la waate. day man sama révolution bu njëkk ci sama njaboot laa ko jiite. Hmm. parce que dama ne man dama sama waajur dañoo jóge àll ba ñëw ñu waxoon leen ne kaay leen aljanaa ngi fii ñu ñëw bañ ñëwee liggéey nañu lekk nañ naan nañ jënd nañ kër mais mënatuñoo ñibbi. ñu ñu juddoo fii nekk fi boobu léegi mais man su ma amee damay ñibbi. damay ñibbi loolu école boobu nag. sama waajur yi dugg yóbbuwuñ ma tool yóbbuwuñ ma géej ma napp. école lañ ma dugal. école boobu nag nee na ma man golo laa <laughs> boobu. nee na ma yàlla amul. Hmm. et samay waajur nag daara lañ ma njëkk dugal. ñu xamal ma ne yàlla am na. Hmm. macha allah léegi nag ba ma màggee jëlal naa sama bopp sama yoon xam naa ne yàlla am na. Hmm. xam naa ne ma jógewuma ci golo. waaw ah kon lu tax golo nekkul nit ba léegi. mais golo yi des golo sax ñoom ñoo ñoom allah jël ndam li parce que golo yooyu lu nit di yàq ci kaw suuf ñoom yàquñu ko ça donc ñoo jël ndam li d'accord man su ma su ma xamoon dama naan kon su ma xamoon resté golo resté golo ba may avancé nekk nit <laughs> <laughs> macha allah loolu am na solo loolu am na daal pour bañ a guddal waaw euh, ma delloo kàddu gi d'accord waaw man daal euh, parce que aussi ba tey man sam problème mooy euh, maanaam lu bari la daan loor africain yi tubaab bi dañu si indil vaccin tey PV mooy programme élargi de vaccination boobu tey fexe na lu ay rougeole ay poliomyélite yu si bëri jóge fi te ñoom xam na ne tey industrie pharmaceutique bi ñëpp si leen si leen lonku maanaam ñun ñëpp si leen def suñu wéeruwaay Sénégal yëpp ñu ngi dem si pharmacie di faju chaque guddi c'est la queue léegi boo xool ñun gis solution xam nga solution ma dama seen firnde parce que gis naa ne poliomyélite wàññeeku na ay rougeole yu bëri. yoo xam ne nasaraan suñu di seeni vaccin naka nag laa mën a toogaate après décennie kam ma daan faj ou bien daan ma defal prévention ñu mën ma gëm loon aussi moom lépp lu mu lay def pour wàññi la pour ray la ou bien pour wàññi sa puissance la est-ce que loolu tamit nekkul tamit aussi beneen lobbying bu bees bu am ci monde bi Monsieur Arouna bi ñuy def mission ak explorateur waaw missionnaire bi nitu yàlla la waaw hmm. da doon maye di saraxe di jàngale di dimbali. Mhm. di yee nit ñi di leen wan yàlla. Mhm. dégg la créer ay église. Hmm. kooku moo nekkoon missionnaire bi. Eh, daf mel ne professeur Clédor Sène moo may wax je ne sais nag euh, salaamaaleykum. salaamaaleykum. le grand Clédor. waaw maa ngi lay ziar. di la ziar grand yaa ngi en direct si Walf Fadjri mais dafa mel ne oh. sa rajo bi dafa foor <laughs> dafa fort waaw wàññi nañ ko wàññi nañu rajo bi. est-ce baax na léegi. oui baax na Clédor. waaw dama tombé nii tout à fait par hasard ci seen waxtaan. dëgg la. ngeen di wax ci vaccin yi vaccin yu Covid yi ak euh, yeneen xeetu vaccin yëpp yi nga xam ne. yii. dafay am jeexital ci fécondité doomu aadama maanaam ci suñu jur. dëgg la. waaw ñu koy aborder nag avec beaucoup de suspicion. ok man dama ci defoon benn intervention. Hmm. surtout bi président demee France Bill Gates. di wax waxu hmm. vaccin à ARN messager. souveraineté bi d'accord. voilà mu doon ay vaccin yoo xam ne. Hmm. Euh, balaa ñu ci engagé wu balaa suñu autorité sanitaire di ci engage wu. dañ ko war a saytu bu baax. parce que ñëpp xam nañ ni. Hmm. Euh, Bill Gates ak nouvel ordre mondial. Mhm. Hmm. ñoom dañu am benn objectif bu ñu tuddee dépopulation. d'accord dépopulation mooy wàññi doomu aadama yi ci kaw suuf. parce que médecine dafa def léegi ay progrès yu bëree bëree bëri ci nano médecine di ñuy wax médecine régénératrice. Mm-hmm. nga xam ni dafa am ay xeetu ferñeent yu ndaw a ndaw ndaw yu ñu tuddee nanoparticules yoo xam ne. micropuce day mën réparer cellule malade yi. Mm. Euh, ba noppi mën a remplacer aussi cellule morte yi. Mm. d'accord loolu nag day tax nit ki gën a gudd fan. Mm. nga xam ni cancer dootul reyee sida dootul reyee Covid bii ñuy wax dootul reyee nga xam ni nit dina mën gën a gudd fan loolu nag li muy indi. Hmm. mooy sur surpopulation moo tax ñoom. ñu anticiper ci progrès yooyu. d'accord pour wàññi nit ñi ci kaw suuf. d'accord te ñi ñu ciblé pour wàññi leen. Hmm. mooy ñi leen ni ñu jàpp ni ñoom amaluñ leen njëriñ muy africain yi <laughs> te ñoom ñu yore ressources yi nekk ci suuf si. d'accord fii la yàlla def ressources naturelles yi ëpp ci àddina bi. donc ñoom moo tax ñu ñuy ciblé ci ay programme de vaccination yoo xam ne. Hmm. lañ ci jublu mooy wàññi suñu fécondité maanaam suñu suñu jurukaay. d'accord par exemple bi mu lay jox rek mooy. Hmm. Euh, Gabon dëkk bu mel ni Gabon. mënuñu ñoo dépasser trois millions d'habitants ba léegi. parce que dañ leen fi joxoon benn ceeb bu tudd PL quatre cent quatre-vingt-un. Hmm. boo xam ne indi woon nañ ko fii Sénégal ceeb bu dijj boo xam ne day wàññi jurukaay. d'accord boo xoolee programme planning yi nga xam ne dañ koy def yëpp gratuitement. jigéen ñi ku ci def planning dootoo dootoo da ngay amaat problème mu am doom. d'accord da ngay am problème mu sax sa cycle normal. Hmm. loolu jigéen ñi mën nañ ko seede. Hmm. mais li gën a grave mooy lu nekk ci xeetu vaccin yi ñuy tuddee vaccin Covid ak vaccin à ARN messager. parce que dañ ci dëxëñ benn conservant. Hmm. Euh, comme par exemple vaccin bi nga xam ne dafa jógoon pour saafara. col euh, cancer du col de l'utérus. ñu ngi koy jox ay xale yu am diggante neuf ans ak douze ans. mel ni ñoom dañu am activité sexuelle parce que neuf ans douze ans xamee ci see ñun ci suñu aada fii. déedéet. donc euh, loolu ñu programmé loolu ci ay xale yu am neuf ans douze ans. Hmm. loolu euh, dafa doy waar parce que vaccin yooyu dafa am benn benn conservant. Hmm. ñaari conservant sax benn bu tudd C soixante. ak benn bu tudd C soixante et un. d'accord dafa ñaari conservant yi dafa am lu ñuy wax nanoparticule d'alumine. d'accord nanoparticule d'alumine boobu. Hmm. ñi lay déglu mën nañ ko gëstu ci euh, Google. Google impact bu muy am ci santé. d'accord dañ lay wax carrément ni loolu. Hmm. dafay wàññi sa jurukaay bu dee jigéen. day diminuer sa production ovarienne maanaam sa sa sa sa ferñeent jurukaay day wàññeeku. d'accord. léegi deuxième conservant bi muy C61. Hmm. boo demee ba ëmb sax da koy tuur. oh donc loolu képp ku ko jël. Hmm. yaa ngi am problème mu fécondité. te fajul Covid fajul cancer parce que ñuy jël vaccin yooyu yëpp. Hmm. Covid ak cancer da leen continuer di dal. kon du du saafara mais programme la boo xam ni. dañ ci jublu dépopulation. mais mais mais, mais le grand li ma bëgg moo laaj mooy. est-ce que la médecine africaine am na information boobu. non médecine africaine amul information boobu forcément. d'accord mais euh, suñu professeurs yi nekk fii am nañu information boobu. mais kon ñoom ay complices lañ kon ce sont des complices. xam nga gis ngeen docteur euh, Daouda Ndiaye. oui. professeur Daouda Ndiaye. oui moom lan lay bàkkoo. Bill Gates li xaritu Bill Gates la loolu lay bàkkoo. Bill Gates lay bàkkoo. <laughs> mais mais Bill Gates lan la ñu xam ci Bill Gates est-ce que lu baax la xam ci Bill Gates Bill Gates. moo fi créé mille vingt benn programme bu ñu tuddee ID. 2020 identification 2020 hmm. maanaam pour mën a marquer biologiquement euh, population mondiale bi yëpp pour mën a def sélection hmm. loolu moo doon objectifu Covid bi mais ñoom dañu sóoraalewul yàlla dëgg moo tax yàlla mi nga xam ni moo yor lépp hmm. def leen échoué loo ci seen pexe d'accord parce que ay millions de morts yi ñu séntu woon Afrique comme ni ko Melinda Gates waxee woon xaw ma ndax yéen a ngi fàttaliku loolu. ak guddi woon na Afrique dina am ay millions millions néew yuy traîner ci mbedd bi bientôt. Hmm. waaye loolu Europe lañ ko gis. Espagne lañ ko gis. Italie lañ ko gis. États-Unis lañ ko gis. Allemagne lañ ko gis. ñoo ñu def naa li ñu deele africains yi deele wuñ ko. Hmm. parce que yàlla daf ñu dimbali. ci souche bi niñ ko bindee. Hmm. dafa am lu ñuy wax séquençage dafa am lu ñuy wax toftale. mooy séquençage séquençage bi nag. virus bi ci jiitu mooy virusu sibiru biy joxe sibiru. d'accord boobu ngay njëkk am après mu am virus H1N1 bi nga xam ni. Hmm. moo lay jox moo lay fat moo lay tere noyyi moo lay jox problème respiratoire et pulmonaire. moo tax nit ñi daan soxla oxygène. d'accord mais ñun daaw ñu àgg ci deuxième étape bi. Hmm. parce que ci étape bu sibiru ñun lañ koy faj. d'accord ak suñu ay jer ak suñuy. Euh, ferñeent euh, nu mu tudd euh, suñu suñuy suñuy nu mu tuddati genre wax. waaw si jinjeer ak xorom poleeg yooyu lañ doon naan. suñu teey dëgg la. suñu teey affaire bi dañ parce que ñun sibiru yàgg nañ koo jànkonteel yàgg nañ koo faj ba dootuñu fàggaagal ni ñuy fàggaagalee tubaab yi. d'accord moo tax daawul évoluer. comme que ñoom jóge nañu ci loolu xam nañu loolu doxul ci ñun. Hmm. man damay ragal ñu dëpp séquençage bi. Hmm. d'accord parce que bu ñu dëppee séquençage bi di yoon indi bi nga xam ne mooy fatt mu jiitu. Hmm. boobu moom <laughs> dañuy dañuy am problème. mais am problème question bu mujj mooy le fait que aussi tey président demoon si jataay boobu. ak mm-hmm. pro kon propos yi mu fa tenir bu ko continuer sans moom conseil kon mun na nekk après un aligné. non pas un aligné man dama dama foog ni. waa ministère de la santé. dañu induire président en erreur con euh, renseigné wuñ ko bu baax. d' accord. parce que discours bi mu fa lire ñoom ñoo ko préparé. d' accord. voilà te vraiment man je crois que moom ba mu jógee foofu. xam na li ci li ciy dëgg dëggantaan. Hmm. parce que vaccin à ARN messager. il faut que nit ñi xam ni loolu dafa jege lool ADN bi nga xam ni mooy suñu photocopie. d'accord mooy li gën a tuuti li nekk ci ñun. ci biir suñu cellule. te loolu dafa dugg ci li ñuy wax génétique. d'accord génétique mën na soppi lu bëri. dëgg ci nit malo gàncax. d'accord mais génétique mooy tax garabu ko bi daan def trente mètres. Hmm. ñu wàccee ko ba mu def deux mètres. te day continuer di am ko d'accord loolu manipulation génétique la. ok noonu la ñu mën a defee manipulation génétique tam ci nit parce que ARN boo xam ni. Hmm. donc dugal ci yaram nit ki pour mu produire benn vitamine bu ñuy wax spike. Hmm. pour que vitamine boobu xeex contre virus Covid. kooku da ko sant mission. d'accord mais lu possibilité bi ngay am sant mission benn ARN. loolu mën nga ko sant beneen mission. ça macha allah. boo ko boo ko santee mission mu produire vitamine spike. Hmm. ça veut que mën nga ko sant leneen mu def ko tamit. d'accord boo ko loolu nag mooy danger bi. woo ko woo ko mu ñëwaat ñu def ñu def ñu def science ak technologie yooyu. macha allah moo tax dañoo warut a sóobu ci programme yooyu. oui parce que wóoluwuñ leen parce que dafa jóge ci Bill Gates ak li ko wër ak nouvelle ordre mondial. alerte bi alerte bi hmm. dëgg la. moo doon contribution bi ma bëggoon a joxe. parce que dégg la ñu ngi rafetlu ñu ngi rafetlu. mais li wóor daal. waaw waaw bëri na ay programme yoo xam ni. yii pour wàññi jur la. d' accord te Bill Gates ñëw na fii wax ko. programme dépopulation réalité la. d' accord. marquage biologique bu population yëpp moom la ñu jublu. ci Covid bi parce que France boo passe vaccinal da ngay am code QR comme code Wave yi. macha allah. waaw boo boo ko def boo ko defee sa téléphone yi ñu xam ndax vacciné wu wala vacciné wu. d' accord en tout cas en tout cas euh, ne foo ma indil fii benn jury comme ça ñu yaatal lii. parce que aussi tamit euh, population bi dafa dafa soxla alerte aussi. mais day baax day baax tamit. waaw ngeen indi un un professionnel de la santé. waaw c'est que euh, contacté woon naa leen mais am na domaine yoo xam ne santé bi ñoom aussi tamit mënuñu di si avancé. Mm-hmm. ñoom en dafa mel tamit da leen abal bët. mais en tout cas maa ngi rafetlu baax a baax mais dinaa la ñu xool nu ñu koy gën a yaatale aussi. amul benn problème mais il faut ngeen insister pour am un professionnel de la santé. d'accord professeur. de préférence. macha allah euh, pour ñu mën a xóotal ci yu mel nii. merci beaucoup le grand maa ngi seen ñi ngi rafetlu ñi ngi rafetlu. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf le grand Clédor di ko jaajëf aussi si participation ou bien contribution am am naa dama ne bàyyi rek comme ça ñu mën a dolli aussi parce que dafa mel aussi dafay ñëw en appui parce que man. Eh, li may bañoo ñu jiite suñu population yi xam booy xool ñu doon si benn population ba dañoo xiif ànd ak pessimisme feebar mais yenn propos daf leen gën a tiital parce que tey booy xool 100 pour cent de la population vaccinée na leen mais lii nii daf leen gën a indil stress nag. man nag loolu sam problème. non amul non stress bi ñëwagul. d' accord ah ñëwagul. déedéet stress bi ñëwagul de. d' accord vaccin yi njëkk yi réussirul. d' réussirul d' yii di waaj a ñëw la. d' accord yii di waaj a ñëw parce que yee ñorul woon quoi en quelque sorte. togg bi daf togg bi dañ ko yàkkamte. parce que amul benn vaccin bu nu pare ci deux ans. d' deux ans trois ans mu pare. d' te science fu mu amee consensus rek xamal ni li ñu def baaxul. macha allah il muy am ay weddi donc du coup yii di ñëw nii yii war a ñëwaat nii waaw yii yooyu yooyu ñu yooyu ñooy wax ji yooyu noonu la ñuy euh, kon yooyu jéem a def alerte waaw mais yi jot a pikiru garaawul yooyu amul benn effet mais yii di ñëw moom saa yi macha allah si xam naa li ñu cëriloon si waxtu jeex na xam naa du ñàkk ñu defar ko partie remise mhm. xanaa jox la la suur après ma doog a ñëw si pour la waaw science sans conscience nekk ruine de l'âme. dëgg la loolu laay jeexalee. ça macha allah <laughs> Arona la suwet comme ça ñu mën a xool aussi ñu defaatee beneen partie remise. amul benn problème ak Clédor wala ak un professeur de santé wala quelqu'un d'autre. Oh, oui allah man je reste disponible et open sur ces sujets pour aider la la la la société la population sénégalaise. à ce que ñu am beneen. mindset comme ni ko grand bi waxee ouverture bu gën a yaatu maa ngi nuyu képp kuy Pikinois ah, képp kuy jeune maa ngi nuyu tous les membres de la jeunesse éveillée hmm. di nuyu sama cheikh sama wasila Cheikh Souleymane Sall ak Tidiane al Khalifa dëgg la merci beaucoup merci beaucoup Kals merci beaucoup si euh, monsieur sama professeur Arona rendez-vous inchallah très prochainement ñu defaat aussi beneen partie remise ak ñu doon déglu ba léegi nii si kanam tuuti seen émission Keppaar gi la di Black Label yàlla sur Walfadjri yow mi bëgg sport ci sa biir xol est-ce que yëg nga ni expert nga ci sa sport préféré ak 1xBet sport bi nga bëgg mën na la indil xaalis bu dul jeex mën nga jouer ak résultat wu match yi gagné xaalis bu dolleeku ci li nga daan am dugg leen ci 1xBet.sn wala nga télécharger gaaw appli